Heavy Mess.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 faatu ca conkee sim njaganaar nekk ca département bu Bignona ki ñàkk bakkanam nag nee ñu ab plombier la ka ko faat fi mu ne teg nañ ko loxo moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax ma ne Sénégal ba léegi ndaw ñaa ngi jël gaal yi de ma ne ndaw ñaa ngi jël gaal yi di dem ci géej gi la wax barsamba barsaq baa ngay wey de géej nag boo wàccuwul dana jeexal ndaw yi réew mi marine ñaani bu Sénégal dafati nañu seen manin ndax teg nañu loxo altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet bi weesu lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay candidat yu bëggoon tukki waaw góore waay jaaroon ci géej gi utali Europe candidat yooyu nee ñu bari ñi la ñu déparé woon juróom benn fukk yi ak ñett ay sénégalais lañ ñeent fukk ak ñeent yi ay gambien lañu juróom ñett fukk ak ñett yi ay guinéen lañu fukk yi ak ñett di ay malien nee ñu nag ñu ngi leen tegee loxo ñaari téeméeri kilomètres ci waaxi Saint-Louis ñu rang-rangi woon wutali Europe tiitaroo moo tax ma ne taxawaay yu ni mel war nañ koo gën a yokku bloqué ndaw yi ñuy fàtt fépp teg ci ay tëralin yuy tax ba ndaw ñu dootuñu génn réew mi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax waa ji nag li mu def ramb na doy waar ndax ab waay daf koo héberger bi mu ko héberger ba noppi xëy génne ko waa ji jël jaasi dal di koy fekk këram corote ko xaw tuut mu jaare fa ñàkk bakkanam waay man réew mi leen dal mbir moomu nag nee ñu mu ngi xewee ca jannatu bee fay di waa ju ñu agressé mooy nettali ni mu demee nee moom ci boppam moo hébergé woon deewañ ci ab marchand ambulant bi mu demee ba remarqué na day muqi amba ci kër gi ci la jëlee décision ngir génne ko kër gi bi mu defee lu ni mel nag dal koy génne kër gi nee na dañoo tëdd ba benn guddi bés boori quatre heures matin mu dégg ay coow ndekete booba deewan moo cëppeelu ci kër gi dal di ak jaasi dugg ci néegu gorom bu jigéen dal di koy sëkkatal ne ko bul yuuxu taxoo maa bee fay nee bu mu ubbee buntam ngir xol li xew ci la daje ak deewañ mu dal di koy fogg jaasi ci bopp mu daanu wëpp law mu naan deetawaay mu fekk ko fi mu tëdd di ko corote waa ji ne bu dul woon gorom ak soxnaam def intervention gaaw yóbbu ko hôpital kon ba léegi du toog di ko nettali waa def ndombeli nag di deewañ fi mu ne teg nañ ko loxo jeewañ nag ci biir lanket bi ne moom deful lu dul vengé wu ndax bee fay daf koo saaga nday ba noppi menacé ko de mort <laughs> ma ne ko loolu tax nga fekk ko biir këram quatre heures du matin rocci jaas yi bëgg koo rey waaye dugg nga ni rubba de réew mi nit ñi rey tali bii rey géej gii rey bouillon yi rey feebar réew mi bu yàggee ñu jeex de mu doonoon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës